Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf njeexital bi élection législative yi am ci géew politique gi yéeni kay tey ku ci nekk ak jàngat bi ngay indi Rewmi Quotidien moom wax ci statut chef de l'opposition bi mu jàpp ni Amadou Ba mi nekkoon tête de liste nationale jàmm ak njëriñ ñàkk na ko ba noppi yéeni bi gis ni kon moom premier ministre ba woon ñàkk na xeex bi digganteem ak Ousmane Sonko waaye tamit digganteem ak Macky Sall mi nga xamante ne mën nañoo jàpp ni am am na revanche ci ki nga xamante ne moo nekkoon jege ñaalewam waaye léegi mu xëy daal di ber daaraam L'As Quotidien mi ci indi tamit jàngat gis ni ki ñu duppee chef de l'opposition gannaaw présidentielle bi ci ñetteelu place bi la mujj ci élection législative yi nga xamante ne moom la ñu doon amal di dibeer loolu tax na ba yéenekaay bi gis ni amadu Ba ci boppam ñàkk na statut bi ba noppi yéenekaay bi dénk ci kàddu Bakary Domingo Mané taskatu xibaar bi di gëstu ci wàllu politique gis ni Amadou Ba ci boppam dañu ko ci wàllu am na ko loolee du dégg li nekk dëgg kay le mandat dafa jàpp ni mooy Ousmane Sonko dafa rek doggali ñi nga xamante ne ñoom ñooy libéro yi ak li ñu duppee présidentialisme ci Sénégal gannaaw li nga xamante ne waneeti na ko ci élection législative yi gannaaw législative yi nag anna fan la Ousmane Sonko di mujj coow li naan cobbay boob ak léegi le témoin dénk ci kàddu mu Ndiaye Cissé mi nga xamante ne moom mooy directeur exécutif bu ONG 3D li mu gis mooy njiital Pastef war naa des ca primature Sonko amul lenn lu muy wut ca assemblée nationale bi nga xamante ne am na fa majorité ba noppi moom mu njaay mi bokk ci société civile di soytu tamit élection yi gis ni li ñu njort ni dualité mën na am diggante digganteem ak jomaay loole ab mbiru nit kese la waaye laalewul dara ak li nga xamante ne moom mooy seeni liggéey mu mel ni gis-gis bi le professeur Moussa Diaw am jàngalekat bi di gëstu tamit ci wàllu science politique ca université Gaston Berger bu Saint-Louis gis ni Ousmane Sonko daal warul jóge ca primature bi mu nekk ngir wuutali assemblée nationale ndax njiital jamono ji kenn mën koo takkaleeg doxalinu nguur gi loolee nag dara waralu ko lu dul dayoom waaye tamit li nga xamante ne moom mooy gis-gisam bu Ousmane Sonko jitewul tamit assemblée nationale Birahim Seck ci la tribune yéenekaay gis ni ki ñu ko war a dénk daal dafa war a nekk ku mat ba noppi defaraat xar kanamu pencum ndaw réew mi di fexe ba tollele waaye tamit askan wi gis seen bopp ci kër gi kër googee di assemblée nationale le quotidien dafa gis ni liy gën a jàmp ci li nga xamante ne moom lañ leen di xaar muy watu léegi nii moom mooy projet bu bees bu Pastef ndax bu ñu fa jógee ci la ñuy xam li nga xamante ne moom mooy économique ak politique bu état bu Sénégal ni assemblée nationale bi war a taxawee ak li ñu njort ni dinañ ko samp muy haute cour de justice source a ci la xëy niki tey ji di nettali ana naka la war a bindoo ndax bu ñu sukkandiku ci loi organique bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ca war a bokk war nañ leen a samp benn weer gannaaw bu ñu installé assemblée bi ba noppi yéenekaay bi di fàttali ni gannaaw coowal Idrissa Seck ci atum 2005 ñiy bokk yéenekaay boobee ba léegi yeesalaguñ leen ndax régime bi nga xamante ne moo fi jóge bëgg ko woon donte disposition yu loi organique yi daf ko sàkkoon bu ñu defee élection législative ba samp assemblée bu bees législative yi jàngat bi nga xamante ne foo def na ko moo di ànd nawle bu Maguette seen moom moo ci révélation bi li ko waral nag résultat provisoire yi day wane ni marche de territoires ànd nawle war naa am lu toll ci ñaar ni ay député te ci wàllu natt bi tamit mën nañoo jàpp ni moom mooy juróomeelu force politique ci Sénégal maire bi di Adama Diallo waxuma la sax résister waaye jël na poste député bi nga xamante ne moom la ñu may département bi rax ci dolli ci commune Malicounda Maguette Sène moom moo fa gagné vote bi vote bi nga xamante ne opposition bi ñàkk na ko enquête yéenekaay li mu ci jàngat mooy lii dafay wane ni booloo bi nga xamante ne ñoom ñiy féete ci kujje gi def nañ ko mujjuta am benn jeexintal li ko waral nag bokk na ci rivalité bi am ci seen biir ay njuumte tamit ci wàllu doxalin Pastef mi war a am lu ëpp téeméer ak fanweeri député ci assemblée war naa tax ba opposition bi xoolaat bu baax seen doxalin ba noppi jàngat li waral askan wi joxu leen seen kóolute Ismaïla Madior Fall di jàngat ci réew mi quotidien li mu gis ci élection législative yi moom jëwriñ jowoon gis ni askanu Sénégal danoo dellowaat rek buum ca mboy mboy ga daa di dëggal tànneef bi nga xamante ne defoon nañ ko ci mars 2024 waaye tamit gën a jëmmal li Sénégal yàgg xam moo di nii ki nga xas ba denk nguur danga koy jox majorité ngir mu mën a doxal moom professeur bi yamu ca ndax Ismaïla Madior Fall def ba boole organisation élection présidentielle ak législative ngir yaxanal waaye tamit fexe ba ñu moytandi li nga xamante ne dund nañ ko nekki ren ji ndax lu toll ci juróom ñaari weer ñu ngi nekkoon ci incertitude ci wàllu politique beneen proposition bi moo di ni dayo bi nga xamante ne premier ministre am na ko ak li mu wane ci résultat yi ci législative yi waaye sax ci présidentielle bi wees war naa tax ba ñu xoolaat régime politique bu Sénégal moom Ismaïla Madior Fall gis ni loi sax war nañ ko xoolaat ndax ki ñu jàpp ni moom mooy favori war fexe ba mu bokk ci élection te justice du ko gàntal ndax kóolute bi mu gis ni Ousmane Sonko am na ko ci askan wi loolu waroon naa tax ba tey ji moo nekk njiitu réew mu Sénégal gannaaw nag noppi nañu ci vote bi Sud Quotidien dikk na ci résultat yi nga xamante ne moom moo tukkee ci département yi mi dëggal tendance bi nga xamante ne moo di Pastef jël na raw gàddu gi moom Pastef le témoin gis ni dafa écraser rek ay concurrent ci ndakaaru ndax lu mu rawee ñi nga xamante ne ñoom ñoo féete ci opposition bi muy sàmm fas mënu ko daw résultat yi Pastef am ci ndakaaru su natango yi gis ni Abass moom ci yoonu mairie bu ndakaaru la jëm ci maître Abdoulaye Wade l'observateur ci la def enquête ngir jàngat lan moo waral géopolitique yi di wéy ba tey di ko sollicité ci ay élection moom njiitu réew ma woon mi nga xamante ne léegi mu làkk téeméeri at yéeni kaay groupe Futur Média bi di ñu xamal ni ay leader politique ba tey dafa mel ni dañu koy jëfandikoo ngir yokk li nga xamante ne moom mooy seeni position mu nekk sur exploitation bi nga xamante ne yéeni bi jàpp na ni ñaaw na fi ñu toll ndax image yu mujj yi nga xamante ne ñiy bokk ci opposition bi dañu ko fësal ñu nekk ci ak maître Abdoulaye Wade mu nekk ci anam yu doy waar loole yéenekaay bi jàpp ni ñaaw na lool ci stade Abdoulaye Wade bu jam Diamniadio démb Rewmi Sport di ñu yëgal ni Sénégal am na fa ndam ci kanamu équipe bu Burundi Habib Diarra moo fa jaar dugal ab doublé ba tax suñu gayndey jeexal ci anam yu mucc ayib éliminatoire CAN 2025 bi record yéenekaay di ko dëggal nekkoon équipe bu Sénégal bi daal démb jeexal